patriote di malen di nuyu bah di len ziare rek leen wax ne macha allah wax nga dëgg nag fal benn président am ñaari président mana nek ak Alpha Thiam mana naa ne mën naa nekk de yàlla xam na ne 500 francs bi lu beri beri beri mën na cee nekk parce que ñun problème bi am mom mooy loxo yi doxantu yàlla xam na ne 5 ans ka, ko fi 5 ans ñi ñu jox bi kenn bañ a sàcc ku nekk yam ci sab salaire billahi wallahi wa tallahi senegal développé senegal lenn ko téye lenn moy loxo yi doxantu ñoo bari sàcc gi càcc gi ñu teg la ci place ngeen sàcc alali réew mi lolo bari nga programme baagi 500 baagi ni 500 bi lim lim ci leeral lu am solo la lu am solo la gis nga ko euh 1 litre de huile maanaam un litre diwlin 500 francs man na nek wër alcorane man na nek parce que amna souf ci amna ndaw yi war nañoo mën a bay gerte gi teg ko ci yoon segal ko jaay ko diwlin googu mooy gën te war naa mën a jar 500 francs mën naa ne mi ngi aju ci walante ñi jiite réew mi rek waaw mu mu dolli ci ne kilo de mën naa nekk sucre si ki ko jox avant ñuy juddu ba léegi ba maam juddoogul lañ ko ko jox kilo suukar téeméer doy na ci doy na ci loolu mën naa ne alpha mën naa ne mu ne un litre de essence téeméer man naa ne maleenu gën a yomb essence te fii la koy jaarale yëf yi dañ ko tegul ci dëgg nañ ko teg ci dëgg mi ngi aju ci welante ñi jiite rek mu teg ci deux kilos de riz ñaari kilos ceeb téeméer mën naa nekk ceeb kilo juróom fukk doy na ci ceeb dañ koy bay comme ni ñuy bayee ñàmbee gerte gi yëpp dañuy bay ceeb te am nañ suuf si am nañ ay ndaw waaye jàppale lañ amul kon deux kilos ceeb téeméeri dërëm mën naa ne mu teg ci ne autoroute APS bi Ila Touba ba Togoloo cent francs mën naa ne APS bi ku ne xam ne ne seer na ñi ciy jaar oto yu ndaw yi boo jógee Touba bala nga agsi fii ngay agsi Dakar da nga ci def cinq cinq mille cent francs kon loolu mën naa nekk nee na marchandise yi yaa ngi koy fekk ci prix dañu wut ay magasin yoo xam ne ay sénégalais koy seere prix yi nga fekk ko ci kon lii mën naa ne lii mën naa ne waye fal ben président am ñaari président man na né ak Alpha Thiam ah, néna na ma nél nél Alpha Diomaye Diomaye Alpha moom profilam sax Diomaye la ca def xamna naa ko ñeme la té non la nit bo duggé ci mir da nga cey engagé wu ba ca biir parce que ñun lool lañ xam mais en tout cas dal lima leen mëna xamal mom moy li lepp bo xolé euh, dafa laaj ay jangat xam nga ñëw né téeméer man na né après nit ñi réy affaire yoy lu am solo la waye nañ jàngat téeméer bi téeméer bi ak li ci ginnaw téeméer bi Euh, parce que dama gëm ne bari na loo xamante si nii mi ngi seer ci Sénégal jafeñu li ñu ko teg lépp lépp lépp lépp mooy ay sàcc parce que réew mi da koy jox ay nit jox leen budget jox leen lépp ñu sàcc alali réew mi ba pare jël tabaxe ko ay immeuble ba pare yokk luyaas bi yàlla xam na ko luya ñoom ñi fiy luye ñu ci bëree bëri immeuble yu bëri ñoo ko moom te alali réew mi lañ sàcc tabax immeuble yooyu seeral luwaay bi loolu ci boppam lañ war a taxaw maanaam loxo yuy doxantu bu ñu ko téyee lu baree baree bari mën naa mën naa mën mën naa yomb